ah Boucher Ketchup sa mag yi daal lii lañ la teralee si victoire bi nga jëlee ci MMA bi Pape Diouf sa mag lii la la defal rayal la ay xar ànd ci ak Matar Diop PDG suba teel la grand ménagère ànd ci ak sama yaay sa yaay bébé baas lii daal lañ la teralee daal tey rayal la ay xar nga invité say xarit ak say am di jàmm maa la wax loolu le grand dibiteri mooy déplacé wu ñëw pour la xar yi waaw bés bi nag sa bés la yaa ko mérito yaa ko liggéey tu es le meilleur tu es le meilleur Boucher Ketchup kenn du yow tu es le meilleur wax loolu xale yi ñu ngi ci waañ bi depuis suba depuis suba xale yaa ngi ci waañ bi ça c'est les grands traiteurs ça traiteur Adja safal bi gën ngi nii waa sa Ndeye Sall le mbaneur mbana bu dee mban rek kii moo ci aay Habib moom moo gérer crudité yi Habib Mané gérer ku nekk daa am loo gérer fii pour baa ngi nii ça c'est les poulets ça ngi nii macha allah mais baax daal fii la génn